beneen bi ci topp mooy li xew ci demuk Ousmane Sonko beeg dikk bi loolu lu jar a wax la kon maa ngi dànkoof waa Pastef fii maa ngi koy wax di waxaat nit du jébbal boppam ay noonam ñu koy traité Ousmane Sonko bu leen leeree ni dafa war a di wuy ji te ñoom nee na bu demee dañ koy daan dañ koy condamné ngalawaay nan ko bàyyi mu dem na dem ba jam ñaajo na dem ba Thiès na wiiri wiiri waaye comme wiiri wiiri ndaari rek lay eggee waaye waaye nan ko fa xaar lan moo jar fitna gi yépp ñuy teg ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko njariñ loo fekke de njariñ loo fekke kon sécurité Ousmane Sonko ak kaaraange ak Sonko lu war a sàmm ci mim réew di Sénégal la parce que xamalu tax may wax loolu ñun dañ fi gis ay exemple gis nañ fii kaw Omar Blondin Diop ci jamonoy Senghor le grand Maodo Mamadou Dia jàpp nañ ko tëj nañ ko génn na doon silmaxa ay exemple yu bari ci Afrique ci ñoo xam ne tey jii xeetu Ousmane Sonko loon woon fi ñu mujj ci ñàkk wér gi yaram ci ñu mujj ci fu bari kon protéger Ousmane Sonko sàmm ko aar ko baax na parce que nag bu dee ni Ousmane Sonko mooy seen or or de doo dugg ci kër gis ko mi tamambalu or doo doo dugg ci kër gis ko mii tamambalu or dañ koy nëbb bu dee Ousmane Sonko jaral ne leen li mu leen jaral waratul doon koo xam ne tey jii danañ ko coppe dugal ci oto rek jël yóbbu bu waree dem tribunal nan ko encadré gunge ko ba mu egg këram lépp ci jàmm ak salaam ñu atte ko bu dee atte bi jàll na mu def appel bu defee appel yoon jaar fi mu war a jaar ba ñu jël Ousmane Sonko bu amee ndam baax na bu amul ndam ñu xool yan pexe la ñuy def mais nag jébbal ko takk deri rek li xew di xew parce que nag mbiri nervi pourquoi ñu ragal ko fii la Macky Sall jëm maatam ñu gis ca yoon wa ñu ne ay nervi ñu ngay duma waa Fuuta kon nguur googu tey jii waroon assurer la sécurité des bien et des personnes maanaam yoon dafa ne nit ñi ci seen bopp seen kaaraange nguur gee ko yor waaye te sunu alal ñun nguur gi moo ñu ki ñu ko sàmmal nguur googu nag bu demee ba ñun mënatuñ sàmm yaa problème bu demee ba mun a boyal ay nervi bu demee ban na ay nervi ñi ngi def lu leen neex te takk der yi dal leen la ragal a arrêté loolu musiba la bu dee loolu am na loolu musiba la te loolu lu war a jug la parce que nag takk der yi ñoom dal leen la ñu sàmm suñu kaaraange mais képp ku ñu gis mu nekk menace ci suñu kaaraange da laa war a teg loxo parce que Guy Marius ci xibaar yi mu jëg génn nee na cent soixante jeunes arrêté na leen démb cent soixante jeunes arrêté na leen pour diverses raison pour divers motifs na yoon def liggéeyam waaye noonu ñu arrêté manifestant yu Sonko yi mais loolu lan war a arrêté ñu ñu gis ci vidéo ci YouTube bi ñu yor ay jaasi ñi ne ay mbër lañ ñi leen ay lii ñu ne ab responsable Benno Bokk Yaakaar bu dëkk Medina mooy ki leen gemb bi leen dàqee sax nee na ca mairie ba la dugg waa yoon du def liggéeyam ñu xool nervi yooyu yoroon jaas yi yor ay arme blanche ñooñu ku leen yónni kan mooy commanditaire bi léegi daal ñoom bu dee seen ñoom nga far seen nga yor jaas yi seen nga dóor ku ne xool li ñu def dàmbooj li ñu def dàmbooj a gën a ñaaw daa noo non jàmbur day manipuler sociaux man mi xam daam xam naa du manipuler daam nekkul ci ay tappale ginnaaw émission bu mu def Futurs Médias TFM génn ñu dar ko jëme ko Radisson Pape Matar Diallo ak waa ji nu mu tudd Mame Birame Wathie dem fi manifestation ñu leen di tëkku képp ku nu tëkkuwul ci ay ngànnaay ñu ngi lay woo téléphone di la saaga ak di di ko teg ci sa kaw parce que ñi koy def fi leen fi menacé ni dañuy taal Walfadjri ka ko def ñëpp xam kan la ba tey ji kenn tegu ko loxo fii la Guy Marius Sagna dem Malicounda ñu agressé ko mu porte plainte plainte mu mujjul fenn Sonko ñaata plainte la dugal ci réew mi justice bi waxu ci léegi képp ku bokk APR am nga sécurité képp ku bokk bennoo am nga sécurité lu la neex wax lu la neex def bu la neex nga def appel au meurtre bu la neex nga ni appel na yow wooteel lu la neex Macky nga faral rek yow da ngay mucc mais bu dee ni danoo yaakaar ni ànd ak Macky sàll sañ nañ teg lu ne ci sa kaw ana Pam Ndiaye lu dul def liggéeyam rek ñu yëkkat ay daan teg ko ko ci jamono jooju maa ngi gis ay chroniqueurs yi naafeq nekk ci ay tele ay màggeti journaliste yoo xam ne tey jii ñoom danoo waroon di wane la bon exemple seen i rakk ak seen doom di xool ci ñoom dégg naa ci kenn démb. xaw ma nan jonn ci benn tele moom fu mu waxee nan non Sonko waru woon woo booy Sonko fii kun fi woo say mbokk jóg moom buñ ko woowoon day woow journaliste ne gunge leen ma ab sëriñ fii ci réew mi kun ci woon nga woo say taalibe na gunge leen ma Ousmane Sonko ay militant am la yaakaar ay militant la yaakaar bii dem ci yoon bi du du woote ni Macky sàll woote woon Idrissa Seck woote woon ko Ablaye Wade nan ko woote Karim Wade woote ko xalifa woote ko ñu ne Ousmane Sonko du ko woote du fi conférence de presse ay journalistes yi naafeq parce que stratégie bi ñu teg mooy dañuy fexe ba benn Pape Ndiaye du waxati ñu manipuler ay journalistes punkalu journaliste naafeq bu dara xewee ñu teg leen ci plateau yi lañ jàngoon ak la ñu xamoon yépp ñu sànni ko fële nekk ay hypocrite jël seen leer jëndee ko lëndëm ci alal joo xam du leen jariñ dara booy revue de mel ni kuy def communication doo def agencement bu baax te pourtant mën na revue de presse mais danoo dugg ci tappale ba yàq revue de presse alors que revue de presse ku ne xam na nu koy defee agenceel attaqueel defal say transition def suite bu baax c'est libre mais tey jii képp koo bëgg a yàq yow da nga jàpp ni ci revue de presse nga ko war a yàqee di parparloo ba réew mi yëpp xam ko lu sa wax nga génnee teg ñaata journaux ñoo judd ci réew mi tey jii ay journaux yoo xam ne weer wi lañ juddu kenn xamul ku leen moom bu ñu xëyee bind lu leen neex woo seen revue de presse ñu leen koy revel lépp rek pour contre Ousmane Sonko lépp rek pour xeex opposition bi lépp rek pour jaay seen bopp. ci alal joo xam ne di nga un bien mal acquis ne profite jamais di nga di nga alal outil na rafet di nga li ngay fen ba am ko billaahi boo waxoon dëgg jot ndax sa wërsëg la kenn mënu ci dara parce que nag ñi fi wax dëgg di def seen liggéey normalement kenn gënu leen a tedd de <coughs> xoolal jour kenn gënu leen a tedd de ñi fi nekk ñu naan dañuy tàngale ak ànd ñoo nguur gi est-ce que dañuy xëy di yalwaan ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi solu am loo xam ne ñàkkum jom kasal du dus kon affaire yi nañ ko rafetal teg ko ci yoon mais aussi wax dëgg gi boo ñu ne Ousmane ko war woon génn woote moom moo poussé jeunes yi ci lii ak li lee day tëdd ñu rendi ko mu faatu kenn àndul ci ñu yàq kenn àndul ci ñu tas kenn àndul ci ñu toj alalu jàmbur kaar yi ñuy toj ñoo ko moom Auchan yi ay doomu Sénégal ñu ngi fay liggéey total keneen ak keneen. loolu kenn àndu ci parce que man bu ñu yàqul sama alal man du mu ci ànd kon il mais nag mënuñu nangu ab gouvernement taxaw def ab gouvernement de combat et d'attaque ñu keroog waxoon naa ko ñu dem ba ñu naan combat ak d'attaque ñoom Pape Malick Ndour ak ñoom Lat joob Lat Diop war na wax Lat joob lan lay wax Ahmed Aïdara ko gañe Géejawaay ñu boole ka ak Khadija Mahécor boo xam ne mat na ko doom mu gañe ko kooku Ousmane Sonko day nawleem kooku bu mënoon dara ci géejawaay dinañ ko gañe